occasion na leeral message yi nga xam ne dañ ko doon def te ay saay-saay politique ñu koy def message bi mooy lan mooy Yaya dafa keek ak Macky Sall message bi mooy lan Yaya amul base politique tey nit ñi ñëpp dem nañ waaye Moustapha Cissé Lo monsieur le ministre honorable député yi fii nekk au conseil ak responsable yi wax leen Kaffrine Kédougou ci saal Kaffrine Kédougou ci saal combat bi mu ngi ni ñu ngi ci kanam xam nga nak ku dor sa bay boko ko koku kooku nga ñaka jom re waya xam nga kula man ku man sa bay mo la man 2012 man ma nekkon benn auto la yoron jakarlo ak ñom ñep ma bodé ak ñom ma am premier tour 32 deuxième tour ma am 65 élection député ñu dindi sama liste éversir kenen ma daaneel liste bi au conseil bi ñëw ñu nekk côté ma nekk à côté ma daane laa leen ma gagné ñu dénkaan ma ma nekk délégué région bi ma am benn région amul li ma am parce que opposition amul parrainage ci région de Kaffrine ma am aussi 78 pour cent dans la région de Kaffrine ma nekk troisième région du Sénégal bon tey dama leen ay waxal ci presse bi laay wax président Macky ñi ko gën a bugg ci aduna bi man la dundam amut lek amut nan amut ta amut bakkan mu ngi rot mu ngi lay fekkal mu ngi lay tej bobam la àndoon ak mom duma ko bañ tay waya dana def ñaari mbir ñaari mbir bi moy lan dana keekal sama reso, dana kekal sama askan loolu nak budé dee mo indi ciow ci réew mi réew mi dana tak ñaarel bi li nga liggéey ba pare nga gis ay nit ñoo xam ne liggéeyuñ ko ñu ko koy yàq loolu danaa ko bañ ba tëdd ci suuf ma xamal président Macky Sall la ne Yaya Sow mii ak ñim àndal ñun waxuñ waaw waafal déet amuñu beneen candidat bu dul moom ànduñu ak beneen candidat bu dul moom am na ñoo xam ne ñu ngoy mbubba Macky Sall waaye ñoom ñooy noonu Macky Sall la tey parce que ñu ngi ci suuf di wax li bax lu ko ñu ngi def ci souf lu bon té kam naa lenn mooy bañu ma kenn ku ne am war sa kam ci ligéyam lepp luñ la denk nga lek ko waaye nag kam naa lenn du ma nangoo nag ma ligéyal nit golo di ligéy babu du dund li tak may bañ nak askan bi la wax na yaaya kese mo bañ tay leer na du yaaya kese am bañ yaaya bu bañé ñop bañ département Koungheul bañ réseau bi bañ Sénégal bañ damay kamal ben mbir ñi wat nañ kamné ne bu bon yéne nek la borom mo ci fanan pare naa pour combat tey la commencé ñom nak fan yépp ñu ngi doon combat nañ fekkal yaaya nañ fekkal yaaya tey nak la départ combat nañ préparé di wuti ngemba limay wat waxuma ko bakku waxuma ko dara téere bi la ñun la askan bi la te ma xamal leen du ma tontu ku dul maire ci li nga xam ne ñu ngi may boros ñu ngi may wax démissionnel député askan bi moo tax du ma démissionné député 62 pour cent laa amee Koungheul bu ñu weddee Macky Sall na tas assemblée nationale tey ñu demaat élection ma jotaat sama député départemental man yeluwaanuma poste ñaanuma poste sarakuma poste métier sàmm laa ci kam ak mbéy ci loolu lay dund te sukk du tere yóbbaale sa oom waaye nag ma leen ay kamal saay-saay waxu dégge waaye dina yàq kel ñu fi nekkoon doon ay politisé depuis Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall nañ comparé ñoom li liñ defoon ak man li ma def bu ma leen oppale jéggal na leen politique 39 forage Macky Sall jox na mako ko ma gas ko ci réseau de café tay tay 39 forage 126 machine moulé ak ay piste ak ay courant ay stade bi ak lenen ak lenen ak ay ambulance bu ko di nit di indi ci askan bi lolou la askan bi kaaroon ci ñun ñun duñu wax lu amut waa danañ wax li am te mu jëriñ askan bi